Sénégal dafa tolloon foo xam ne ñi doon wax ñu néew la wala sax ñi nga xam ne sañoon nañ jël dëgg jiital ko di ko waxee ngir jëm yàlla te yàlla tax bariwul woon Ousmane ko nag bokkoon na ci ñi nga xam ne dafa tayle woon bakkanam ak vie privée ak njabootam ak liggéeyam lépp yàqu ngir Sénégal gu baax waaye nag bu ñu demee ba loolu lépp jeex ba Sénégal am tawféex ci jàmm nekk ci jàmm Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël ndogal lu am solo boo xam ne sénégalais yëpp ñu ngi koy rafetlu mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di magistrat àndoon ak Macky Sall nga xam ne ñoom bëgg-bëgg Macky Sall kese lañ doon doxal ku ci mel ni ne Oumar am Diallo Amady Diouf Abdou Karim Diouf baaxum procureur ñoom ñëpp amul kenn ak Mamadou Seck koo xam ne nekkaloon nga fi askan ma répété waat ko amul kenn ci ñoom ñi nga xam te ne bale bi yóbbu na leen Tamba kenn koo xam ne askan bi taxoon na la jóg du kenn ci ñoom Sénégal bugguñu ko woon ñaata nit ñoo faatu ci seen ay décision yoo xam ne teguñu ko fenn Badara Gadiaga mii kaalawu puudaru kenn xamul mu doon amul BFM amul kayit amul xam-xam amul dara taxaw bëgg rek jël décision boobu moom waxee ko nu ko neexee mbokk yi justice bi faw ñu tegaat ko ci yoon waaye nag am na jëmm yoo xam ne waratul leen dëkk micro ndax it amuñu xam-xam te baaxuñ ci réewum Sénégal loolu jomaay ci boppam war naa bokk ci li muy njëkk defar mbokk yi ñu teewlu Badara Gadiaga dellu siwaat fii ci seen seen préférée Sen Ndiariñ TV ñi ñu affecté Tamba ak Kédougou mais lecture bi c'est très simple képp ku laaloon ci dossier Adji Sarr laal ci dossier Mame Mbaye laal ci dossier bu laal Ousmane Sonko mais affecté nañ la xam ni Qui perception bi fi Sénégal niñ ko mës jappé moy mooy li Bouba wax légui horaire ba nga jëm Tamba. et c'est même grave de stigmatiser comme ça ben région ci Sénégal wala département c'est très grave lolu ñuy fowé mais li ci gëna grave du ñooñu ñu jël yóbbu leen Tamba li gëna grave moy ñi ñu fal Soudé kima ki ma mere laa kon ki ma la fal.

am ñu ñu defal promotion mais ñu yag dégg Ousmane Sonko di wax lo leen réunion xam naa ko leen waxtane ay magistrat ñoo koy netali le dossier de ton ami muni magistrat moko ko lañ doon wax ñu nekk dans une administration très dangereuse kii secret mom ñoo raw sendal ñoo raw toile ku nekk ak ka ngay nettali amatuñu ben confidentialité pour l'administration du Sénégal des gens qui partageaient des manifestations du PASTEF sont promus. C'est ça la réalité. Sur leur page Facebook, voilà un peu de retenue en étant magistrat. Mais dañu ni ki jaar ci ils garab xam li muy jaar base on doit éviter les pratiques anciennes yobul nañu diw Tamba yobul nañ diw nangam yobul nañ diw nangam djublu ci sanction mais loolu baxul et mais Dakar dañ ko wara sax décon dañ ko wara a bu nit ñi dem ci région yi liggéey mais Ousmane Sonko en personne mo doon wax ni baat bii la Ousmane Sonko utilisé bu ñu yaakaar ni samay wax la de parce que Sénégal des fois ñu oyofalal Ousmane réyal ko ñeneen yi moo naan yóbbu leen ca xaj la doon wax mu ni magistrat yi dëggu dañ leen di yóbbu ca xaj kon tey ku dem fu sori mom lim ko jappé bu yobbu la ci xaj lu and bi ngeen andon ak sen chaîne préféré sen njëriñ tv wat ci kaddu yi dof bi nga xamné amul xel amul xalaat wax nañu sax BFM amuko muy wër ci plateau yi lu melni jakarlo TFM télé faral maki lu ko neex mo ko ci régime bi tétagu ko fenn yi yëpp dafa wara dak ndax it euh, gis nañ taxawaay bi nga xamné ñom amon nañ ko ci jamono Macky Sall amul kenn koo xam ne yaayoon sañoon nga yiy yàbbi ci nguur Macky Sall wala ngay joxoñ baaraam wala Macky def ba noppi ngay wax waaye amul léegi lan moo tax Macky jóge fi jàmm ñëw ñëpp nekkaat ci jàmm ñu bëggaat tëggaat réew mi ci beneen anam bu bees amaat justice bu bees magistra yu bees yu gëm yàlla ragal ko te maanu di àtte li nga xam ne moom la leen seen peuple euh, kaddu yi nga xamante ne moom ñoom dañ ko war a liir rek liir la droit rek lañ war a def amul leen leneen lu war a def mooy bu fekkee yoon ci boppam dafay def yoon yow amoon leneen loo ci war a teg lu dul yoon li mu tëral nga liir ko jeex na léegi nag Sénégal lan la ñu bëggati ku mel ni Badara Gadiaga ñii ci boppam dañ leen war a noppiloo ndax baaxuñu ci société ndax amuñu xam-xam amuñu xel jànguñu jonguñu amuñu palte amuñu place ñoom dañuy wër rek di sol di sañse di jaay taar bëgg loo xam ne lu ñu mën a am ci nguur gi buñ ko mën a am ñu yàq der ndax ñooñu dañ leen war a bàyyi ku mel ni Badara Gadiaga Madiambal Diagne Ahmed Suzanne Camara gis ngeen ko ak Bah ñoo ñëpp ñu ngi ndugg sin kon tey jii Badara Badara Gadiaga mii bokk na ci ñi nga xamante dafa war a noppi wala ci boppam yóbbu ko fële ca 100 mètres ca foofu la yeyoo parce que lépp lu wax dara du ko du ci dëgg te tegu ko fenn bu doon sax loo xam ne da ko teg ci xam ñoom dañuy wax nii rek di sànni ngir jàpp nañ ne ñoom mën nañu chantage nguur gi di wax wax joo xam ne ñoom dañuy ragal woo leen ci suuf am lu leen jox loolu ku koy def jàpp naa ne da ngaa xamul président Ousmane Sonko waxuma la Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais premier ministre Ousmane Sonko taxawaay bi mu am ci réewum Sénégal laata muy jot nguur gi wax na li muy wax mu leer nañ Ousmane Sonko alal bu ko taxoon jóg ak nguur kon Basir Diomaye Diakhar Faye du doon président du Sénégal ndax da ko koy xañ danaan budul man kenn du bokk mu tasaare lépp yàq lépp mais def ko dafa xam ne li nga xam ne projet bi yépp koo xamante ne jub nga jubal mu war nga ko mën a porter am xam-xam ba noppi ragal yàlla maanu te loolu mi ngi ci basiiru moo tax mu jox ñu basiiru